Salam alaikum à vous la mifa, j'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Mais bien sûr, la chaîne des news, des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, euh, jusqu'à présent, vous, vous êtes pas encore abonné. Des fois, je me pose la question, mais gars, il y a pour abonner ou en fait abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification va permettre de vous des vidéos automatiquement jot signal sans pour autant gagner vous ne de recherche ou quoi que ce soit. alors gars aujourd'hui, nous euh, dañuy wax ci récemment intitulé Califat la bon personnellement déglu l'ai plusieurs fois je vais dama pour joxe version ci mais avant tout damay féliciter réalisateur bi car la vidéo elle est très réalisateur bi moom job na lu extraordinaire mais aussi respect au beatmaker beat bi nice na trop sax j'ai adoré le beat en fait alors gars yi Califat la boo xamante ne ni confirmation la Dip dafa ñëw pour wane ni la woon fa woon tey la wàllu gën a aay lu mu mënoon démb ak bërki démb tey la ko gën a mën en plus bu leen xoolee sound bi dalay fàttalil Dip Doundou Guiss vers les années 2015 boo leen xoolee bitu classique la indi et gars yi namoon nañ classique je vous le parce que boo leen xoolee les gars yu bëri drill bi lañ jël mais Califat sound la boo xamante ne ni pour nga comprendre ko foog nga xam luy ego trip xam luy pic name dropping ak clash sinon rek day méttee comprendre loolu yëpp nag lañ ñëw tey pour vous expliquer et détailler après bàyyi leen ngeen mën a joxe seen xalaat ci commentaire yi léegi ce qu'on va faire mooy dañuy àndandoo xooli tout direct sur la vidéo intitulée Califat ñëwaat léegi léegi let's go. xaar bi du jàgg ba raw ma raw ma kàppi bi champi bi ñëw na yo bandi sa papa ji ñëw na ñëw na ya ñëw na chef bi ñëw na ñëw na xaar bi du jàgg ba raw ma raw ma kàppi bi champi bi ñëw na your band is a papa. xaar du yag ba raw Eh, eh, e, e bi champing bi ñëw e deguma, ma bandi sa papa ji ñëw e ñëw chef bi ñëw alors gars yi gis ngeen tuuti vidéo et c'est au nom de Califat Maintenant, ce qu'on va faire C'est dañuy enchaîner directement ci biir sound bi expliquer et détailler après à la fin de la vidéo ñu allons leen ngeen mën commentaires joxe seen xalaat ci commentaire yi ci noonu boo leen dégloo Dip Doundou mu ngi naan bamay je dugg ci la dama tëju rek di pour samay buntu tijjeeku fi mom dañ fi am plusieurs techniques de un dañ am antonymie ci yi en même temps mën nañ am tamit comparaison ci tej ak mais aussi mën jox dégradation parce que je me débuter carrière am dafa commencer ci point A di ba ci point B moo tax mu ni ci gambi dama rek di pour samay buntu li yem nag taaru mbind la vraiment et bu ñu globaliser li mu bëgg a wax mooy que talent rek doyul boo amee talent foo nga nangoo job exploiter talent bi nekk ci yow bu baax a baax parce que nag gars yi job mooy fay de yàgg naa di leen ko wax ku leen wax ni leneen lu dul job day fay waxu leen li am talent moom boo ko amee sam waay liggéeyal sinon du la jariñ dara mën nañ ne conseil la pour jeunes yi bien sûr mais aussi ci moom lay wax genre bu amee li yëpp ci game bi moo ko ko may ñu xuusaat soo leen ko dégloo mu ngi naan xaw ma woon ni li tax may sonnay xëy bés buux ba ci teen bi bon fii lu muy wax mooy nit li nga gën a bëgg moo la gën a mën a sonal moom ci rab bu mu nekk moo ko gën a sonal parce que amul temps doo am liberté fans yi dañ lay soxla teg ci di réclamer famille bi tamit soxla la ñenn ñi di critiquer di farmason la di moo def lii moo def lii affaire yooyu noonu moo tax mu ni nit li nga gën a bëgg moo la gën a mën a sonal prenons par exemple Gorbi, bi innocent. innocente ci lu mu gëna bëgg la koy naxé bu ci jang la danan ko la la sa Dina la fayal formation et tout yéen gor xam ngeen lu may wax bu baaxa vous êtes pas fou ngeen bal ma nak man c'était juste un exemple. et juste après il dit musuma juutu ci gambe fayuma juuti ci gambe euh Dip Doundou gis yàgg na toog di wax naan mësul neexal benn animateur pour mu teg sanwonam wala di fay benn animateur pour mu invité ko moo tax mu ni mësumaa juutu ci game bi fayuma juuti ci game bi et boo leen xoolee à travers ces sound danaan carrément yaakaaruma ci kenn ba tey ci califat de Dip Doundou gis bu ngeen ko dégluwaatee mu ngi naan maa yërëm cuuj ji fi dem bañ dagg seen cucu ci game bi

li ngeen di dem di fay mën mën ngeen ko fay prix sound gën a wane seen bopp gën a liggéey parewul gaay dib dund gis waat sax defu ko ngeen dégluwaat ko mu ngi naan segam old school du ruux ci wutum tur new school bi du leen jig genre dafa am old school yoo xamante ne ni ay légende lañ ci Gambie et ñu ngi si milieu hip hop bi ba léegi tey am nañ studio am yeneen ak yeneen am yenn boy yi nga xamante ne ni ñu ngi soog a seen carrière dem nañ ci grand yooyu bien sûr pour am seen ndimbal ndimbal comme lan am ay conseil ci ñoom wala ñu produire la leen euh, produire leen seeni sound ci ñoom seeni studio mais grand yooyu farataluñ leen fullaaluñu sax seeni wax mais jamono di dox dem ba booy commencé am tur ci game ñu bëgg langaamu seen ginnaaw wala di leen jege moo tax dim ne loolu du leen jig lu tax mu ne du leen jig c'est parce que booy dañoo yàgg mbapat dañoo liggéey ba sonn soog a yegg si fii tey donc képp ku ñëw bëgg lekk seen xaalis tamit du leen jig ayca gars yi ñu bu ngeen dégloo dib dund gis mu ngi naan rab wolof du raw kenn day mës a suulu nu teer bi lii suñ ko déggee aussi automatiquement dañuy envoyé waat directement ci quatre mesures yu ñu jóge ñëw fii lu tax mu wax ko mooy grand yi nekk ci kaw au lieu ñu jàppale yi taxawu leen defuñu ko mais dañuy bàyyi ba booy am dara ñu nekk seen ginnaaw di daw di jéem a am dara ci ñoom du coup se la vérité gars yi mais avec ça Rap Galsen du avancé day gën a suulu ni terre bi comme il a si bien mais aussi am na ñu naan dafa clash rap wolof moo raw attention man je me dis que ni nii du clash mais li mu bëgg a wax mooy baatu rap wolof moo raw day tëj artiste par exemple am na benn rapport bu ñu wax si moom rapport soninke la sénégalais la nag. et ça na stade yu de comme Mauritanie et plein d'autres euh, stades ici au Sénégal Malick sax invité et ci invitation bi mu ngi rap wolof mo raw dafa raciste parce que ci et que wax rek parce que rappeur ci euh, ci wolof rap sens bi na sens ma jox exemple rappeur Simo en plus am ñu ne dafa clash Elso Jam donc parce que Elzo moo fi génne woon sound intitulé rap wolof Mo raw mais man sama bopp jàppee moo ko clash xaw ma nag yéen donc foofu wax len ci sen xalat. ayca gars yi ñu xuusaat xooli Dip ñu gis lu mu wax bu ngeen ko deglo mu ngi naan man duma middle school ma middle finger ruxtunu Gambie quand Dip di duma middle school mu ngi wane ni moom du old school genre il n'est pas old school mais il n'est pas aussi new school mais mu ngi ci digg bi. fi nga mooy lu nekk ci digg bi comme baaraam bi ngeen baal ma nag mais j'essaie juste d'expliquer mooy comme baaraam bi nii baaraam bi nekk ci digg bi et baaraam bi lay ruuxee gem bi genre métaphore la en fait genre moom moo xam lu gem bi soxla et par la force moom dib dundu gis moo ko koy jox toujours dans califat de dib dundu gis su ngeen ko dégluwaatee mu ngi naan ci saawu ci seen ma gël ba mën la jur dutee ma sut la foofu bul ñor di chef ceeneel te kul sa tojo ludul sa douche di course pour dab ma kut ka kut mujjé di wut secours fii euh, am nañ euh, technique altération en s et en d parce que moom bu mu wax rek amna s am li nga xamanteni tamit moo di euh, d let's go on continue bu ngeen wati dib dund gis mu ngi nan ken xamula ni ku sa propre mère di wo di juum sa tour métaphore lañ fi am manam yow ken xamula tojo fenn ba pare bëgg concurrence ak mom sam way ko yab mu jël exemple ci koo xamante yaayam day ci et gars yi se la vérité mais xam ngeen koo xamante ni yaayam day juum ci turam mooy et juste après il enchaîne directement en disant sama liggéey mooy fay di suul ay vous am punch sur punch en même temps am name dropping punch bi dañ koy am ci le mot fay fay comme sant mais fay comme ngay fay bor wala ngay fay lamp comme ngay suul rappeur mais suul comme tour. pour nga comprendre punch bi nag foog nga basé wu ci le mot meen name dropping bi nag dañ koy am ci suul meen ak fay boo ko boolee mu jox la man fay mooy artiste musicien boobu donc Dip mu ngi koy rendre hommage. après loolu nag gars yi ñu jàll directement ci refrain bi refrain bu simple la dóor et vraiment j'ai adoré il dit xaabi du yàgg ba raw ma kaabi bi champagne bi ñëw na yóbbandi sa papa ji ñëw na et chef bi ñëw na. refrain bi moom tënk na sound bi yépp et lim ci bëgg a wax mooy képp kuy jaay band képp ku nekk ci game bi di bandi bandi lu moom Dip gis Guiss mooy sa papa et defaan na retour ci biir game bi donc sama waaye demal nga toog c'est pas moi qui l'ai dit j'essaie juste d'expliquer mais aussi am ñu ne réponse la envers Ngaaka blende et le groupe Akhlou Paradise parce que Akhlou Brick moo fi génne woon sound intitulé Ndiba bi euh, Ngaaka ñëw ci sound bi nga xamante ne c'est intitulé metti nii ne man maay Ndiba bi donc si bu waxee li automatiquement xel yépp ci loolu lay dem man nag xaw ma réponse la xaw ma lan la en tout cas selon vous wax leen lan la ñu xuusaat ba tey ci biir sound bi di Kaliphone il dit bi may dugg ci game bi jóge si suufu tunnel yi yegg si di këm fu ni jët li lëndëm ni sunguf bu weex bi teg si ñuul kukku ni der bi donc Dip dafa indi technique comparative moo tax mu wax euh, jët li ak këng fu ku ne xam na ni këm fu ci jët li la fekk baax mais mu ni lëndam ni sunguf bu weex bi mooy moom dafa dangereux il est très dangereux sunguf bu weex bi gars yi xam ngeen ko mooy cocaïne maanaam drogue parewul gars yi dib mu ne waat sut la ci lépp ngay xolu ndax dib sa coup këru meer la fii am nañ punchline ci la moo xolu xolu comme nit kuy xolu nit ku gaaw a mer koo xam ne à chaque fois de bokk golo gi mais xolu comme sa xolu meer lim ci bëgg a wax nag mooy mom su génné produit du ñak gaay yu critiqué na rafetul di siisu mais ak lo xolu xolu loko bañ bañ bañ soo ko dégluwul sa waa gàll wuñu ko par la force sa yaay dina ko déglu. et juste après gaay il dit ci volcan laa lay denc duma la suul fu suuf mën sedd xam ngeen dañuy wax naan euh, yàlla na suuf sedd ci kawam mais mom nee ci volcan la lay et xam ngeen ku ñu ci volcan mom suuf du mën sedd ci kawam parce que volcan dafa tàng. gars yi boo leen bëggee dégg dëgg dip ci boppam moo agressif non mais je vous le jure parole yu agressif la indi il enchaîne directement en disant ñun ñoo koy teg fu leer ngeen di fute ko mer ñun ñoo ngi suñu dixième saison série yéen benn sketch ngeen mën fenn dangeen ci dëggu ni kuy jullee ku dee suul ngeen ma du lu mën a nekk mais nag bul xeeb sa réew fii nag <laughs> mungi def allusion ci euh, sound waa Reptile Music bi nga xamante ci intitulé pour l'air la ko tek en plus di wax ni sen label Reptile Music daa rawee yenen label yi lu bari sax parce que ñom ñu ngi sen 10e saison yenen label yi nek ci seen euh, ci ben sketch yi lañ tollagum genre dafa ñëw valo valoriser labelam Reptile Music valoriser ko ba ci kaw jëlé yenen label yépp wàcc leen ba ci suuf gars man dib daf ma jaaxal quoi à vrai dire mais bon on continue bu len ko déglu dégluwaatee mu ngi nan rabatuma xaj bu jóg di ñoo di wut tànk di kumbaak du maag yéen wut leen keneen may man rek ay génnee clash yi toppante ni 12 ak 13. li mu bëgg a wax mooy gars yi dañuy mbubboo rab bi rek mais gëmuñu ko quoi ni gumbaak télé xam ngeen gumba bu toogee naan day seetaan télé boppam lay nax parce que du gis. et en plus mu ngi ñuy xamal ni que su génnee dara rek la gars yi di profité pour génnee aussi seeni produit parce que ci bësam la ñuy langaamoo ci bësam la ñuy basé wu pour mën a am tur. su génnee dara rek la clash yi di toppante ni 12 ak 13 est-ce que xam ngeen ni du Doundou gis mii saay-saay la ngeen baal ma nag mais bon mu ngi noonu daal en tout cas on continue en plus gars yi il dit may guux seen deret cim gem bi yëpp ni Ndiouga Kébé genre moom ci kaw la nekk yeneen rappeurs yëpp nekk ci suuf et ce qui veut dire que ni moom dafa tiim gem bi ni immeuble Ndiouga kebe yi tiimee yeneen immeuble yi alors gars yi gis ngeen saawoon bi c'est au nom de Califat

léegi wax leen seen xalaat noo leen gisee vidéo Dip Doundou vidéo bi di Califat noo leen gisee le sound mais aussi noo leen gisee sama vidéo à vos claviers bàyyi naa mu tëmb. alors gars li lañ leen indiloon tey ñu doon wax ci sur sa toute nouvelle vidéo au nom de Califat donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker comment soxla je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza National et sur Snapchat Kenza Diallo. Allez, puis c'est Novla Mifa. Gros bisous à vous, restez bien connectés. On se donne rendez-vous très bientôt. Bye bye, à la prochaine. I love you all.